waaw tey euh, dañoo ñëwoon aussi euh, di continuer sunu naqar yi nga xamante ne dañ koo amee ci réew mi ñu xool xam ne Sénégal ouvrier représenté wu fi dara ndax ñàkk représenté dara moo tax ñu jël plus de cinq mille jeunes ñu sànni leen ci bitin yi ñu tourner aux alentours de l'ancien piste lekkuñu naanuñu xëyuñu gontuñu depuis le samedi soir vers trois heures du matin bu actuellement vendredi tey ñoo ngi aux alentours kenn ci ñoom xëyul kenn ci ñoom gontul kenn amul leen loo xamante ne mën na koo yónnee dépense këram mu nekk loo xamante ne c'est un manque de respect un manque de considération boo xamante ne duñ ko adapté kenn ku weesu suñu administration ndax bu fekkente ne yow mën ngaa nekk un premier ministre de la république ñu jox la réew mi pour nga gouverner ko wala nga wax ak nit ñi nga mën a woo ñoo xamante ne ay mbëru lam lañ di leen jox 500 millions barki démb say doomu réew ay xele yu ndaw nekk aux alentours doon liggéey liggéey bu am solo am économie bu di ko def ci économie Sénégal ñu génne leen fii benn administration boo xamante ne ñëw na mosawuñu ci wala mu wax ñu ci du opposition du pouvoir ñëpp la kenn faalewuñu kenn mosawuñu léegi ñun nag comme loolu lépp am na te ñun xam nañ ne ci dëkk bi lañ dëkk liy doxal réew mi ci lañ bokk itam kon léegi ñun dañoo jël suñu choix choix bopp actuellement dañuy lancer sunu maison de l'automobile bi nga xamante ne ñun dañoo am ambition bi te dinañ ko def sans administration sans n'importe qui dinañ ko ànd ak sénégalais yi nga xamante ne ay bonne volonté lañ ak ouvrier yi nga xamante ne ñu ngi Sénégal le monde artisanat xam nga lu ñuy soxla fi mu toll nii mille électeurs lañ soxla lii ay carte d'identité la yi ngay gis fi un million un million électeurs lañ soxla te jii nii collecté nañ mille électeurs ci un million yooyu soxla nañ ku ci mu andi mille francs ça fait un milliard ñu mën a continuer suñu projet ñun dinañ xam ne ñun bokk nañ ci réew mi dinañ xam ne itam ñun jàng nañ te dinañ xam ne ñoom ñi toog ci bureau yi ñoo leen gën a xam nan la ñuy développer développer dëkk nan la ñuy doxalee dëkk ñun ñoo leen ko gën a xam ndax ñoom ñi nga gis ñëpp ñu toog ci bureau yi dañuy signer rek di tamponner di signer wu ñu kenn jàngaluñ kenn dara ci école français yi lañ jàngee lañ jàng ñu suivre ko toog ci bureau yi di signer di dem ñun dañuy jël xale yoo xamante ne amuñu xam-xam jàng nañ ba toll ci yenn âge yi état mënalu leen dara ñu jël leen former leen cinq ans ñu commencé liggéey université bii état baa ngi nii di ko réformer di ko defar te jeunes yi ne fii daanaka toloo na ak université bi to kenn faalewu leen kenn yëgu leen léegi nag ñun à partir d'aujourd'hui ñoo ngi lancé un appel solennel à toutes les artisans du Sénégal fu waay mënti nekk dans dans les frontières international fu artisanat ne ñoo ngi lay woo ci xeex bi nga xamante ne dañ koo commencé bu artisanat pare ne kenn du opposition du pouvoir pare ne ñu kenn ku ci yor carte d'identité woo sa soxna dinañ def les alentours région par région département par département commune par commune village par village fu ouvrier ne dinañ fa dem carte d'identité boo am dinañ ko récupérer anduñoo kenn anduñoo kenn pour muy leer anduñoo kenn dañoo commencé bëgg a xam ne ñun lii ñuy def ci réew mi dinañ ci bokk ci député yi bokk ci ministre yi koy def ndax fa ñuy jaar ñun mën nañ faa jaar ñoom dañuy wax ci tele yi ba ñu xam la rek nga xëy ne man candidat la ñun dañuy liggéey ay ingénieur ñoo taxaw fii bu ñu taxawee pour am loo xam ne dinañ ko def ci réew mi wallahi azim dinañ ko def ci fii ak deux mois te ñoom dinañ ko xam ñun basé ñu ci kenn combat boobu la ñuy lutter fi mu toll nii di ci woo mécanicien yeeg tôlier yeeg peintre yeeg taximan yi dañuy woo taximan yeeg chauffeur yi nañ xam ne ñoom ñëpp ci ñun lañ bokk les ferrailleurs de ce yi artisans le monde tout ñëpp nañ ñëw ci xeex bi nga xamante ne képp koo xamante ne yaa ngi laal ci oto chauffeur camion chauffeur taxi chauffeur njaganjaay chauffeur car rapide na nga xam ne xeex bii ñuy xeex ci nga bokk ndax bu atelier amul Sénégal yow mi yor oto doo dépanner kon léegi dafa jot politiciens yi ñu jëlee leen ci réew mi jox réew mi ñuy liggéey ndax mosuma gis nit ñuy liggéey nga xëy embarquer toute cette jeunesse fut leen door télé yi toog ci rajo yi di wax ay jour ay ay ay parrainage ay 137 candidats loolu yàpp Sénégal mënu koo weesu te ñun ñoo ko fi mën a jëlee ñun jeunesse bi nga xamante ne ñun la ñuy foutre door chaque jour c'est un combat noble nañ ko xeex ba mu jeex tak buñ ci xooluñ ci état xooluñ ci opposition ñoom fa ñuy jaar ba déposé seen candidature ñun foofu la ñuy jaar ba li nga xamante ne war nañ koo def képp koo xamante ne di nga falu ci réew mi dinga nga ak ñun lu congrès ñu signé ko ci ay papier boo ko deful buñ ca jotee itam ñu def la ñu war a def rek ñoo ngi lancé un appel solennel di woo ñëpp ci xeex bi bu kenn bàyyi ñun réew mi ñoo ko moom ay jeunes lañ du ñu dem fenn fii lañu ñu fii la ñuy liggéeyee projet bi ñuy def itam fii la ñuy jox suuf sii ñu ñu jóge ñu tabaxal ko sunu bopp defaral ko sunu bopp toj nañ fii de waaye nañ jàpp nañ ñun jàpp nañ ne ñun lañ ko tojal ndax dañ ñu koo dragel pour ñun buñ ñëwee ñu mën a tabax sunu cité de l'automobile laajuñ leen xaalis laajuñ leen dara waaw fan la ñu jëm man damay tit ci réew mi ndax gis nga Sénégal nañ def attention yàlla mën na ñoo mbugal de ndax alxuraan dafa wax ci fen loo xamante ne benn asamaan atanu ko te da cee bari ñoo xamante ne télé yi ay dañuy jàpp duñu ay kilifa dañoo jàppe seen bopp kilifa mais ñu kilifa kilifa du fen kilifa du wax lu du dëgg amee rajo yeeg tele yi naan mécanicien yi jox nañ leen ay garage moderne jox nañ leen ay sommation jox nañ li te or ko loolu lépp dara du ci dëgg mécanicien yi mënoo koo fekk ci atelier naan jox naa ko deux cent mille yow loolu war nga koo war a rusa informé war nga koo war a ruus a informé damaa yaakaar ne gàcce ak fen nag dañ koo bëgg a def barke ci biir réew mi waaye nañ ci def attention bu baax buñ demee bu ñu la jiite di la sosal di la jaxaseeg sa askan ba foo dem ci mbedd yeeg journaliste ñu naan jox nañ leen xaalis jox nañ leen sommation lan mooy deux cent mille ñun ñuy xëy liggéey cinq cent mille nga ñuy wax ay sommation deux cent mille sunu atelier yëpp am ay valeur six millions ngay xëy di ñu jox ay ay ay sommation deux cent mille yow maire caaf bi jaay caaf ci mbed mi état bu ko fay jëlee da koy jox cinq cent mille sept cent mille te taabal caaf bi mu yor mën na koo gàddu ci loxoom ku yor ay moteur des valeurs de dix millions yor ay machine yor ay ordinateur yor ay auto pont ferraille defar lu ne ñu def ko ci fii nga ñëw nañu deux cent mille nga ñu jox manque de respect mënu koo weesu na nañuy wax sénégalais yi dégg joxuñ ñu ay terrain joxuñ ñu dara dañoo foutir ces jeunes en en dehors dañoo toroxal seen jeunesse nañ assumer les responsabilités nag lii bañ koy def xalaatuñu woon lii waaye gàcce la ci Sénégal ñuy tourner cette image des jeunes yoo xamante ne jëluñu gaal mbëkkuñu fennuñu sàccuñu emploi ba pare di employé nga xëy fut leen door ñoom ñëpp sa yoon newu ci interdit toutes les journalistes ñu accès dans le lieu pour mën koo wone Afrique loolu c'est la honte ñun dañ cee ruus te dañoo tiit ci réew mi ndax nii ñu administré réew mi barke alxuraanul karim ku fi dëkk nekk jeune war nga cee tiit ndax soxlawuñu ay liggéeykat ay taxawaalukat lañ soxla ñun ay liggéeykat lañu képp ku fi bandi wala ngay def lu bon xam nañ ko ki fuy jaay drogue wala ngay jaay yamba ñoom xam nañ ko ñun defuñu loolu ñu sommes des travailleurs et on toujours des travailleurs ku jàpp ne nag di ñu xoxotal bo gën ñu fii li ñu xam-xam bi ñu yor ñoo ko yor bu ñuy nelaw dañ koy nelawaale bu ñuy dox dañ koy doxaale bu ñu génnee fii dinañ continuer di liggéey oto yi sunu buntu kër yi ba bañ ñuy jox fii ñu defar fii la cité de l'automobile nañ xam ne dañ leen di wax un appel rasé nañ ko waaye duñ ko def ay immeuble ñoo ngi toog di leen déglu nag dinañ dem ak ñoom juridiquement dinañ dem ak moom dans l' opinion et l' international wax ak ñoom buñ dañuy déglu li ñuy wax nag sa la ñuy def xam nañ ko réew mi réew Sénégal ay jeunes lañu nekk fi am fi droit ak un devoir war a wax li ñu war a wax war a def li ñu war a def am ay métier war ko exercer ci réew mi kon état bi na xool bu baax li muy def to xam ne il a une il a commis une erreur très ci lii nga xamante ne def na ko ci ancien piste bu ñuy tekkale ak cité imbécile fii ce sont des travailleurs qui sont ici ñun du ñu cité imbécile te dañ ñoo yab dañ ñoo yab ñun dëkkuñu fii dañuy liggéey nañ ñu fekk suñu kër yi ñun ñoo leen gën a dàq ñoo leen dàq ay kër ñoo leen dàq ay soxna ñoo leen gën a toppatoo suñuy doom ñun juruñu doomu sàcc duñu doom buy mandi ñun suñuy doom dañ leen a teg de bonnes conditions yar leen ci diine ak li nga xamante ne moom lañ gëm waaw sunu ñàq la ñuy dundee sàcc ñu fenn ñu kon nañ arrêté seen affaire u théâtre yi ñuy def naan yaa des bandes yaa des troyo loolu c'est du théâtre nañ may jeunes yi jàmm bay leen ñu liggéey ci réew mi